kon mbokk yi ci kanamu Ablaye sekk ak tubaarkàlla ndel ñu bàyyi leen nag ak ñaari ndaanaan kenn ki ah bu wooyee rek sa xel dem ci Samba Jabare Samb keneen ki ah fu ñu ko dégg suñu xel dem ci ndaanaan yu mag yi fi nekkoon biisu xamu leen. Ndiaga Mbaye Ali Mbuub. ah jagabay rek nga xam kon ñu bàyyi leen nag euh, Pape Mbuub ak Omar Basum ñu yëkkati boy doo ngi xalam saan ndeysaan ndeysaan te xalam xalamay saay saay yan waliyaabe ndeysaan ceerne ceernaaɓe toroɗo mbar untini jam ewa ndeysaan ñalle jam muntaga Amadu waliyan waliya be cerne cerna be Fatumata Seydi Buubu Njang hmm. ah, awa kodda damay se liman se Samba Demba li Moxtaar ñu hmm. dem Fuuta la ilaha ye ko dangay baal tororo samba ngaari jama jéggal nanu eh. zan doole yërmande baje ko dangay baal ka nga bu doole yërëm ko yàlla jéggal la ma ka bari yërmande la ilaha illallah ko gaadu maa samba dembaari muka ala kayna ko samba ninge safaak mar wa ziyaare na beeg cheikh ndeysaan waliyal waliya be cernal cerna be umaro بالله العظيم سنت ورنا جام على كينا كل زمزم Ablaye sàmm mi ci ndaama fas bu judd dafa yendoo daw. rab ba yëngu na. barki démb nii la nii dañu am yaakaar suba ak gannaaw suba war na mën a demee nii Ablaye lii de dañ doon ñu toog bis di fàttaliku ñoom maam niñ daan defee hal buridaayambo hal buridaayambo samba buurub njaay kon nañu bi saara ba jonne ma kitaara jonne makitara cotte makitara Cheikhula Jonni makiyo Alpha makiyo man de li Ablaye Seck ne léegi bés bu amee xaalis day jël asalem soppi ko waaye nag samay milliard bu dugg see Youssou remboursé ma nag ah dinaa jël nag quartier ba ma dëkk dàq ña fa dëkk ñëpp daa di woo géwél yi ñu dëkk fa. Macky yee Macky. waaw waaw way ko hmm? lamdo maki yo maki way ko way ko lamdo di mo dimbi ligi leji denane leydi ndi jimbete ake mo jimbi kala maya hmm? saɗa moolo moolo jambar saɗa ñaago ñaago dokko eway eh, dokko liggéeyuma ko bottaari ko bi doro naani kala tiidaani maki yo maki yo maki waaw maki waaw xam nga woy bi nu mu tudd nu mu tudd taar yóbbu ko jox ko maki amul cheikhu baayam dañu xalamal taara mooy dem waaw makki ba mu màggee dafa woo ñu ñu taara ñëpp hmm. ne leen dootuma leen may dara hmm. ñu ne tax sama baay ngeen woy bàyyi ko bàyyi ma. sama baay ma ko wut sëkk. ñu woyoon baayam ne ko defal sa baay def boo bëggee am woy. mu ne man foole ma fekk woy le ma dinaa leen may loolu nag kenn mosut may. la ilaha illallah. waaw. ko way ko waaw waaw mu jël ndox mi ne ko jon ne ko jonne ma kita yo ko laa moom ah, waay waay waay waay e eh, makiye eh, makiyo maki ceerno Seydou Nourou jom hoore daneere tal Nourou Moutaga Amadou Ceeku Muntaga Amadu Basiru Taal ko defee nag quartier boobu nga xam ni fa laay dugal géwél yi ak xalamkat yi ah xanaa jël ki laam rek mu nekk fa maire Fatou géwél adjoint maire daa di dugg gox bu ne nag a ah, teg fa géwél Omar Ba sum président communauté rurale lay doon <laughs> ndaw lu rëy <laughs> tonton Pape Mbuub ah dëgg-dëgg moom mooy président communauté rurale daan jël na géwél ndaw yi ku ci ne ma def la chef de quartier ñun <laughs> petit petit géwél yi jël Alsane Mbaye nag def ko seen porte parole Alsane Mbaye man nag su nag ah ma nekk nag lien entre présidence ak sama quartier nag. ah, ah enveloppe bi nag du ma ànd ak géwél nag damay dem rek jëli indi ne leen joxe na temps su may kott kott su may jël jël su may làq làq su may nëbb nëbb su may lekk lekk buñ ma mayee ñaar fukk ma jox leen ñeent. su boobaa nag ngeen di xam ni ah lu ngéwél bokkul neexul nag ceeb neexi foofu la Ablaye Seck léegi day bënn day bënn tali bi boo buggee fee ci piscine rek nga xëcc man nag naa fa def robinet xaalis. <laughs> ah waay Ndao Samba waaw fa bëgg a dëkk. ñëw bëgg a dëkk. <laughs> alors euh, tonton Pape Mboup ñu ngi leen di gërëm da ngeen yëngal sax xale yi muy ceddo euh, ñoom defe naa euh, yu mel nii ah fekke wuñu ko waaye boo dégluwee li ñuy def ci xale yéen da ngeen leen di inspiré dañuy inspiré wu ci xalam. dañuy inspiré wu ci traditionnel ah dañuy inspiré wu bu baax euh, ci la amoon démb nga indi taara léegi nii ak euh, Pape Mboup defe naa euh, fàttaliku daal ku ci doxul sax da xamul. dëgg la Diallo. Hmm. dëgg xam nga lu yàgg dëgg la. dëgg la Mboup. ñun sunu waar daanaka bay nañ ko ba noppi. Hmm. ñoom it ñu ngi ci yoon wi. Hmm. ndax. li ñuy woy man dama leen déglu li ñuy woy ñu ngi koy tibbe ci fi nga xam ne nii mooy cosaan mm. te ñun cosaan nga nekkoon mm. jóguñu fu ba léegi ndax euh, ku wàcc seen ànd boo dem fekk borom toog cee di jaaroo ah mm-hmm. mm. man dama leen di ñaanal rek mm-hmm. yàlla may leen fan bu gudd ak kattan amin mbuub amin mbuub ba ñu yegg fan nu jëm amin amin amin mbuub amin incha allah amin mbuub laay sekk mi sama mbokk mm-hmm. te it eh, ba may ba mu nekk xale la ma daan déglu may way mbirum taalibi mi sa ay neen ñu jublu ci. moom moom ma ko feeñu xam ko woon sax. mais boobu ni laa toll. wallaahi disque yu bëri ah. ah. ah. nekk gorom. Ah. et bu gorom bu Thiès. et puis ngéwél gi aussi suñu juumul ak ñoom Thione Seck. dëgg la loolu yàgg na loolu yàgg na si yàgg na boobu mais mais mais dañu yóbbu ci centenaire bi ñu def. moom ak Pape Djibi Ba. Uh-huh. rendre ko hommage euh, Mouride yi affaire yi tout. Ah, ah. damay yeew benn suba man ko mais grand lii dama koy déglu mu taxaw di ma xool ma koy wax morceau par morceau ci loolu may ci bismil xadimi baaxil karimi ma way xadimi muxsil waay bamba dalal na xel seral na xol yi may bi ci yaay say waxa we say jëfa koy xaadim nanga nu gaawe mi naalu waay naw naa sayine bambaatal nga diine woo nga nit a daahi na jaay yow doo nga way xayrul wara daga kowe daara fawxa samaay moo ni xiyara bamba semal na kaab kowe na kitaab filas di yaay santawar ba mu feeñee fa daaru marnaan ngir xaadim bu ko seexoon mu feeñi lubnaan sa ñi daje naa ngeen gi waame tooy ba jàll daaw me ku jiwul ku lay góobal xaw ma bayre libi doore ki jeere hmm. xërgala daan waaye njël la kenn du ne suurul soxna jaara saayu daan wal hmm. kur gu dal di war so xiibal so xiibal di ko sargal ngir ñay wa doom jëlay xalal eh waay xaaral ma ñamal la loolu pa ëpp day bu fi yemoon neex ah. Ah. Eh, eh, eh, baa ngi neex ba tey macha allah oh. Omar xam nga boo déggee ci ndaanaan bi nga doon ak géwél bi nga doon boo déggee woy wu neex ñoom dañuy daan daanelante seen biir. Ah, daanaan day daaneel borom daan daanaan dañuy daanewante. non non Pape <laughs> ñu. nii mu la daanee daane ko noonu non Pape Cheikh. Euh. damay kontaan ci man musicien bi ma doon. que dama toog ci benn émission TFM. Uh-huh. RFM. Uh-huh. ñu mag boo demee. Uh-huh. ñuy wax ci débat géwél yi géer ñi. Pape Djibi ak Pape Mboup comme ni wax sànq Pape Diouf rek. Pape Djibi ak Pam boobu tëj nañ dëkk bi du sow ak kenn kenn def nañu loolu musique da ngay jàng xale yi dañuy war a jàng dañuy war a jàng ñun dañoo jàng moo tax ñu toog fii te moo mën a composé ak Pape Mboup ku gis na ni nga meloon gis Alaaji Samba Diabate voilà ku ne gis na ba mu mel ne Pape Mboup mm-hmm. nii mm-hmm. beneen affaire la waaw yow nag ñëpp nga nag yaa ngi dégg ma ñëw fekk samay rak samay jarbaat samay xarit mm-hmm. ñoo xam ne chaque guddi bu ñuy tëggee dama damay participer xam na benn morceau bu ñu joué mu ñaani dama koy woy ak ñoom. Mhm. ñu yaatal ma seen biir nag ñoom. Mhm. moom Amdal mi ak pap euh, ak euh, Lay Bamba. Euh, Lay Bamba nekk sama xarit ak Amdal. Mhm. ñu jóg suma conseil ñu nit ñu baax. kon donc tey boo leen ma fekk leen fi ñuy dook ñun. Ah. kon ñeme nañu li ñuy def. wallaahi te nit ku ñemewul ñun ay daanal ñu. waaw yu mag jaarul sax ñuy wax. wallaahi mais nag fu ñu toog rek ma war naa mën a taxaw. war nañu mën a dégg dëgg. te ñi yeewu toog. balaa ñuy war nañu mën a dégg dëgg. ba ku nekk boo ndekkee war a ndekkilee war na mën a neex. xam nga loolu moo tax nag yeewu leen bi yamale ko ci xale yi rek ndax tey dafa yoon demal jalam ñaani bañ naa ewa saara fan maa xure